jël xaalisu ki doon daanu ci grand théâtre ma jël ko dugal ko sa poche. <laughs> dugal ko sa poche. dama ko maye dama ko maye dama ko maye dama ko may euh, euh, sama maam Solo Bousso mhm. waaw Arma moo doon daanu waaw ma jël xaalisam maye ko. may ko sama maam Soda Bousso ah war na Arma sa alalam maa ko moom war na te xam naa ne rëccu ko li ma may noonu bu ngeen ko yeewee seen kër di ma xam.